campagne électorale baa ngi wéyandi fële ci sa mbaaw mu mel ni gox boo xamante ne bu yitteel la nga xamante mooy benn bokk yaakaar ba tax na rek Abdou Karim Sall mi nga xamante ne mooy coordonnateur ba nekkee foofii ma ngay amal ay euh, doxu nemmeeku ci kër yi waaye tamit ànd ci ki nga xamante ni mooy Abdoul Ndoye nekk beneen responsable boo xamante ni moom euh, PS la bokk ak yaay Seyda. di remercier ñëpp parce que lii su su yombee je pense pour faut d d'abord les militants Je leader wax légui amuñu solo li am solo la population yi militants les sympathisants parce que dans la coalition bi lim parti mais ñu ci parti sympathisants Nous avons des Macky Sall lañu xol tay tax ñu dugg ci ci. kon ñu ngi ñëpp di ñëpp di wax campagne niñ ko démarré moy la nga xamné li moy la ñëpp nañu fexé population bi une gestion de proximité wacc ci base bi and ak ñom jox leen seen xalaat parce que lolu moy tax yëf yomb lolu japp Nous na bañ ko def ci fukki fan la te nous na ni kenn ku nekk lu nga avec notre coordinateur Abdou Karim Sall mi nga comme ko il n'a pas sur le moyen. campagne bi démarrer. moom moo génn ses propres moyens joxe les cinq commune yi xam ni moo composé arrondissement bi parce que loolu aussi jar na souligner te jàpp naa ne responsable yëpp bu ñu defoon noonu ba a xaar état bi démarrer campagne bi je pense que loolu bu ñu defoon rek da yëf yi dana yomb. ñoom nag ñuy rafetlu rek taxawaayu askan wi waaye tamit di am yaakaar ni élection électorale yi dana mucc ayib loolu bu ñu yeggee ba ci cappaandaw ga. boobu ba léegi ñu ngi def ay proximité porte di dugg ci kër yi ànd ak suñu coordinateur. le coordinateur de la commune de Mbao, M. Abdou Karim Sall, le coordinateur des cadres du département de Pékin, M. Abdou Karim Sall, le directeur général de la RTP, Abdou Karim Sall. ah ñu campagne yi di porte à porte di def ay proximité du dugg ci kër yi di waxtaan ak nit ñi commune Mbao Inch'Allah, le 30 à 16h vous bu neexee le résultat yi dina le président Macky Sall xolam dina sedd fii. ñun sommes ñi ngi président de la république bu baax bi mu ñu joxee Abdou Karim Sall ndax réccu ko benn c'est un rassembleur Abdou Karim yemul ci commune bi rek mi ngi partout dans la dans le département de Pikine mi ngi dimbali daara yi mi ngi dimbali jumaa yi mi ngi dimbali jigéen ñi wax dëgg yàlla. bu ñu amoon yeneen fukk yu mel ni moom suñ commune franchement kon leneen la ñuy wax donc ñi ngi gërëm bu baax a baax a baax depuis si suba jaar nañ euh, cité RTS démb lañ commencé caravane bi commencé site police comme ni ko DG waxee euh, ba dem Shell cité Shell euh, ñu ngi Sachef ñu ngi maanaam ZAC Mbao bi yëpp daal incha allah dinañ ko dem ba mu jeex grace ak moom. jaral nañu tëj suñu bureau ñetti fan wala un mois di and ak di chaque jour luñ ci gar parce que nous avons ndax ku bëgg nit la ku bëgg boole la wax dëgg amuñu fayam. ñaan le le 30 juin ñu gagné ak majorité à l'Assemblée nationale Inshallah, muy li ci ñun bu Sénégal l'émergence Sénégal gën a wane boppam. mu mel ni doxum ne mekk bi nga xamante ni moom la kilifa politique yi amal ren moo gën a mucc ayib ci pexeem campagne électorale yi loolu leen nag tax na ki nga xamante ni mooy Abdou Karim Sall moom gën koo fësal ci liggéeyam waaye tamit jàpp rek li nga xamante ni mooy bëgg-bëggu askan wi comme ni ko président Macky Sall diglee taxaw seen wet fexe xam si bëgg-bëgg waaye tamit taxaw ca ëllëg bu ñu yeggee ci pinc ndew réew ma loolu la rek ngir gën a wëyal liggéey bi xamante ni benn bokk yaakaar sumb na ko. ci campagne yi nag ki nga xamante ne mooy Abdou Karim Sall moom ci goxam boobee nemmeeku na fa rek mbooloo mu takku waaye tamit ay kaddu yoo xam ne yu am solo la jóge ci askan wi loolu leen nag tax mu gën a dalal seen xel ngir rek jox ki nga xamante ni mooy président Macky Sall majorité présidentielle maanaam mu ëpp député ci ëttu penc ndew réew ma loolu rek nga xam ne dina tax sax mu gën a mën a wéyal programme am bii di PSE jëm rek li nga xamante ni mooy soqali Sénégal. maa ngi taxaw fii ak. Euh, Benno Bokk la coalition Benno Bokk de la commune de Mbao euh, n'est que sa droite euh, c'est le coordonnateur du parti socialiste euh, Abdou Ndoye moi suis El bu AFP Banel de la LD et il responsable APR yi nga une ñoo ŋànk commune nous avons un suñu programme visite de proximité de 10 h à 18 h nous devons continuer à ay réunions euh, ay rencontres yo xamné dañ koy organiser avec euh, les ASC euh, tay nak amna ñu satisfaction bu reuy parce que demb lañu dugg fi ci bir biir Mbaw euh retour d'information yi ñu am dalal na suñu xel def nañu cité police demb dem ba cité RTS tay ñu ngi bir CAPEC partout fuñ jaar ñom ñëpp dañuy déclarer ni liste Benno Bokk yaakar bi lañuy voter Té lool nak lu am solo la dañ ci sant yalla bu baax liggéey bi nak dañ koy continuer dañ koy continuer euh, ba campagne électorale bi jeex manam le le 28 inshallah ba minuit 28 dinañ nek ci terrain bi def li nga xamné mom le président de la république santaane moy nek au contact des populations. Euh, bu soobee yalla jeudi bi dañu def ben caravane bu maga maga mag a dinañ fi ñew jaarat fi ak en ce qui concerne euh, l'étape de la Zac comme je le disais tantôt depuis hier nous sommes ici. Euh, nous avons fait la cité police euh, jusqu'à la cité RTS. Euh, vraiment, ce que nous avons vu nous rassure encore une fois. Les populations, comme j'ai l'habitude de le dire, sont très enthousiastes et nous ont partout manifesté leur intention de voter pour la coalition Bernard yakar Et cela ne nous surprend pas parce que le président de la République a, à travers son plan Sénégal émergent, réalisé un bilan vraiment extraordinaire et c'est son ambition euh, pour le Sénégal et pour les Sénégalais est aujourd'hui connue de tous. C'est la raison pour laquelle ici dans la commune de Mbao, euh, nous pensons que nous pouvons enregistrer euh, une victoire éclatante de l'ordre de 95%. Inch'Allah.